waaw parce que ñoom dañoo dañoo dañoo tàmm foo euh, alors que ci république lañ nekk mais ñoom dañuy foo parce que démb ku leen gis xam nañ ne bëgg nañ loi bi contre ñu loi mais bëgguñu Sénégalais yi ne leen ñoom voté nañ loi bi loolu moo am parce que boo gisee seen comportement Birame Souleye bu mu jëlee parole waxul benn yoon ko ñoom dañoo contre loi bi waxul benn yoon ko du ko voté nee na sax day ko moom euh, bu gisee affaire bi débat yi tout ça dina apprécier il faut que nit ñi xam ne passé liñ ci dëxuñoon yëpp xamuñu ko woon pour mu leer il faut que nit ñi xam ne amuñu woon quintessence su document bi lan la contenir lan moo ci nekk lépp lan mooy yuq bi ba ñu ñëwee assemblée suñu président groupe parlementaire dafa laaj ministre bi ne ko lii ngay wax est-ce que ñi ñi ñi ñi suñu demee ba ci biir ndax ñi ko ñi ñi jàpp ne ñoo ko def wala kii ñu koy même ñu sax est-ce que dañ leen di bàyyi. ba ñu demee ba xam ne loolu mooy yuqu loi bi nag si la ñu jàpp ne ñun au nom de suñu. Euh, principe politique loolu mënuñu ko avaliser comme ça mënuñu ko nangu boobu nag soo ko xoolee bu wax Pastef voté wu ko donc même su nekkee Pastef da siy bénéficier parce que nag su nekkee loi moo la bàyyi mais da ngay dem.